donc ma jot un conseiller en communication de la présidence ma ne ko mais tiens ça cetera ma ne ko mais maa ngi mu defee ne maa ngi gidi ma mu ne ma mais on va se voir demain à Conakry ma ne ko non. je suis pas à maa ngi Léopold Sédar Senghor mu ne ma non ah bon. ma ne ko waaw ne ma mais demain ñun dañu ñëw ak président Ablaye Wade on vient pour essayer de régler la crise pour le deuxième tour. Hmm. Euh, donc on va rencontrer Alpha Cellou tout ça ma ne ko non mais Alpha ne foofu Alpha ngi nii ñu day dem Paris. Hmm. mu ne ma non loolu mënul nekk. tout est prêt demain on décolle à dix heures ma ne ko mais soo leen fa demee y aura que Cellou y aura pas Alpha et mu ne ma loolu mu ma ne ko mais si. ma ne ko mais comment se fait-il pour dire comment les institutions parfois fonctionnent à l'époque c'était Ousmane Ngom qui était quand même le ministre de l'Intérieur on était au salon d'honneur et il ne savait même pas l'État sénégalais ne savait même pas que le candidat du au deuxième tour finaliste au deuxième tour était au Sénégal alors qu'il avait été admis là-bas et le voyage a été annulé mhm. séance tenante leer na président Macky Sall am na taxawaay bu mu war taxaw ndax ni nga ko waxee dafa war a nekk euh, président de l'unité africaine mais man euh, li ma bëgg a wax mooy ma dellu siwaat ci question bi mooy protocole de Conakry boobu est-ce que mun nañ xaar mu am njeexital conséquence politique parce que xam nañ ni Alpha Condé nekkatu fa est-ce que mën na am benn changement situation mais man euh, est-ce que protocole bi il existe réellement c'est ça. parce que mais mais mais weddiwu ko parce que dafa ne il y a eu bel et bien deal mais du moom moo koy moo koy wax nañu dem laajte ji ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo tënk. waaw mais est-ce que Condé bi mu koy wax il était dans un état <laughs> d'un chef d'état euh, lucide euh, qu'il n'était lucide. may ko xam mu eggale après dina ñëw ci yow. cest allah euh, tuuti rek. Euh, mhm. li may wax mooy teneur bi. li ne li ñu tënk ci biir protocole bi ba léegi kenn génnewu ko parce que Condé même su waxee loolu waxul détails yi ne lii mooy protocole bi lële mm-hmm. donc ça reste secret parce que un protocole il reste on l'a vu le protocole de Rebeuss ba léegi tous ces protocoles là qui sont mm-hmm. faits sur le dos du peuple wala de je sais qui mm-hmm. kenn du ñëw ba bés génnee ko amul koo xam ne dina bind mémoire am par exemple Abdoulaye Wade war na mun a bind mémoire am ne protocole de Rebeuss bi lii la et cetera. wala Idrissa Seck wala Condé mais ba léegi sa protocole la on la pas nga jàpp ay waxu kese la. man pour man tant que woonuñu ma ko ba ma lii ko pour man daal ah. doy na waar mais c'est vrai am na. yàlla peut-être am na loo ci xam. il existait le contenu kenn xam ko. c'est déjoué. c'est déjoué. déjoué. Alpha Condé bi mu koy jël c'était président Guinée nekkatu ko. Mhm. mais en contrat la loi des partis. très bien moo tax may laaj. il va dire est-ce que dina am conséquence politique. dootul am conséquence politique. Mhm. Mm. parce qu'il n'est plus président de la Guinée. parce que moom ba mu doon def protocole boobu j'étais là je euh, je suis un acteur euh, mm. politique aussi. oui c'était dans un contexte contexte boobu amatul. Mm. contexte boobu amatul. contenu bi bés danañ ko xami aucun aucune des parties amatul ki nga xam ne il était le garant. Mhm. le garant c'était qui Alpha Condé président de la Guinée am de. Mhm. moo leen moo woote li ma bëggoon. kon est-ce que mënul andi kon peut-être ay yàqu-yàqu ci. Euh, retrouvaille bi nga xamante ne ni boobu léegi ñu ngi koy wax. Mhm. lu soxla jëm ci wàllu famille libérale bi. dinaa la wax lenn na dana am loolu de. ça dépend pas de Alpha Condé. ñu koy gis suñu bët di mhm. ñan ñoo des ci gannaaw Macky Sall léegi ñan ñoo rejoindrewul Macky Sall mhm. ci famille libérale on était là ah ñan ñoo rejoindrewul Macky Sall PDS la ñu ñu ngi waxtaan c'est-à-dire Ablaye Wade li mu waxoon le parti libéral sénégalais et la pour cinquante ans c'est pas le parti PDS en tant qu'institution Ablaye Wade c'était un métal leader. fa créer ay leaders yu bëri. Idrissa ah. Seck Macky Sall oui ñooñu ñëpp à un moment donné ils peuvent se retrouver ah. régénérer. euh, cette vision libérale de leur mentor. Mm. ça c' est, c est, c est alors, la politique est comme Diallo, ça euh, am lu bëgg a yokk am na li euh, Alpha wax am na foo xamee ne d' ma ci. Mm. parce que Alpha ça dépend protocole bi est ce que daf ko signé. Mm-hmm. au nom de, la Guinée de Guinée wala moom institut personnel man Alpha Condé lii. Mm-hmm. parce que si ba léegi xamaguñu. <laughs> xamaguñu comme ni nga waxee ça engage la Guinée. donc le successeur est obligé d'hériter de ce protocole la façon dont nos états sont gérés. Mm. parce que l' a continue de. non je te dis problème mu Dadis. Mm. li muy ni en 2010. Mm. j' proche d' Ibrahima Fall. Mm. haut représentant de. d' accord j' étais à Conakry xam naa si lu bari. Mm-hmm. mais la wax. Mm-hmm. am na yenn de nos états les prix.